ci catégorie 120 kilos. bon gaynde mer la fanaanoo. gaynde mer la fanaanoo. Zambala daa amel bor. Zambala daa amel bor général. ñu xool ba fay. ba xam day dolli njëg gi. ba xam da koy lebalaat. ñu xool ba wala 1 amel bor. Ah, ah. Zambala da amel bor. bi ñuy mujj ñoom ñaar arène nationale lañ mujjoon dooni siñoor Papa Ngane mooy xale morona bi siñoor Papa Ngane mooy xale bi def lu na ci lamb moo am sept combat sept victoire dooni siñoor jaaxal gis mu daan kii di général Malika ah lamb ne na day waar est-ce que xam nga ne Papa Ngane daan Pakala. dëgg la Papa Ngane. daan Pakala. xale yi dañoo aay ci poids lourd. kenn ku ne da daan lourd boo xam ne bi nga ko daanee taxaw. dëgg la kooku Modou demal ma fële ca géew ba Mor demal ma ca géew ba. Zambala Malika. Zambala général Malika ña ngay lewtoo. Malika jiital góos. Sambala jiital góos. ñaari fausse garde yo Général sol dëbb na ko naax ma ngi koy bal ma ngi koy bal ma ngi koy bal takk na ko takk na ko attention ma ngi koy fàq ma ngi koy fàq wër na ko ndoom Général lii lan la lii lan la Général ma ngay bëre bay naaw Général daan na ko Général daan mooy borom drapeau chef de l'État nee na Général nee na général nee na général daanaan la général Malika fayu na